nag du ñàkk le premier janvier wala 31 50 tapis vert moom dana fa toj moom tamit. waaw ah, 50 waajal sa bopp. Paco Wane mi ngi toj plateau bi. Eh. ayca nguuda ayca toogal. waa nguuda waay. nañoo préparé maxu poobar le star planétaire. ci ginnaaw mais 1 million la ñu laaj bi ñu ko woowee. wàññi na la ci cinquante mille cinq mille neuf cent cinquante mille waaw bàyyi li koy def star la temps xaw la <laughs> prix la wax rek dafa leer waaye mu gi. <laughs> Ah. ñeent téeméer la demal kon ne acca ah, euh, euh, euh, dama dama koy nuyu sama star bi xam nga nag nee naa leen réew mi ku ne bu la neexee nga nekk star mhm. tata moom xam nga toog nañ ci digg mi mu ne carrément moom moom Sénégal moo fi dàq way waaw moom star la te dama ko revendiquer ay ay weer daal di annoncé 25 décembre parce que xam nga nag star kenn du ko woo ci ay jour ordinaire mhm. waaw nguur maa lay bàyyi nga nuyoog waa Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu waaw waxal ci sa micro mhm. mbokki julit mbokki taalibe dëkkandoo ba ci suñu mbokki chrétien sénégalais yëpp diaspora àdduna ñëpp ñu ngi lay nuyu di leen sant di leen gërëm mhm. di nuyuwaale monsieur le président bi nga xam ne bi yan bi leen ko yan mu diis lool mhm. muy jor réew mi du ne la guddeeg bëccëg ak sama tante Marème Faye di ko gërëm bu baax ak opposition beeg ñëpp ñu ne ci réew mi <laughs> di sant El Hadj moom mi taxawal lii mm-hmm. ba ñëpp mën noo gis mm-hmm. di sant nam gisu ngóone Big Taf ak Ndeela jàmbaar jigéen ji mën góor ajoritu daba boy mm-hmm. ak caméraman yu ni wane ba ñëpp duñ ko ci monde entier bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp moom mii dama koo gis keroog mu def benn way nee nit def na fi ay at kenn xamu ko moom quelques weer rek la def nit ñi daal di koy jox bopp def la def ko star foo foo teg loolu fi ma teg loolu mooy ci lu wér ca ah, leer nañ ci laa koy teg ndax kàddu yu génn ci man di dugg ci askan wi xel lay àndal gis-gis sañ-sañ ak profil leer nañ sunu borom tabaaraka wa taala def na yonent bi ñëpp ñëw fi lépp ci moom la mujj ca yàggu fi sax mu mujj yëpp ci mujj moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu jàmbaar ji ma Seexul Xaddiim fekk na fi ni ca teewul dafa jël ndam. waa Ngouda plateau bi dafa doon ay jàng. defal <laughs> def leen. Macky Sall. may nu may nu may nu ñu wax. Jimmy yaa ngi jaawale sa rôle de. may nu may nu may pilipili la la. may leen ñu wax sénégalais yi ay nit ñu ni déglu de émission bi. waaw lii lan la dix mille sa bopp fii yow waxal Macky Sall dibi fekk na fi dimi ñu ko dàqeerum réew mais moom dafa posé daa première élection mu dem ca pale ba pardon li def loolu moo def lii te yàlla yàlla mu def loolu Macky Sall waaw fekk na fi ñoo xam ne ay papaam lan waaw ñi campagne campagne mënoo dem pale moom mu campagne benn yoon dem pale benn yoon yàlla mu def loolu moo def luy singuta moo woy ñaari yoon moo def lu ko wër falaa ko teg moo tax nga teg ni que yow yaa dàq way Sénégal eh man loolu laa gëm de hmm. à part Youssou laa wax bay moo fi benn woykat dama ne à part Youssou maa fi ne gars yi nag xamuñu ku mën a woy ku xew lan am ak ku ànd ak mbooloo mhm. ak mën a woy du benn nguuda prestation nguuda laa soxla rak muy kaay ni may ngure mu def prestation gaaw parce que comme moom moo daa xawee Sénégal dama bëgg xam. loolu lii amul. Ah, man damaa mën a way. ah. beneen talaa feeñ na fii ci caa Lamine Ngom nee na ma ci suuf. xanaa xamoo man damaa mën a way Sara yaa ngi dégg lii <laughs> maa ngi ñëw. man talaa lay fekk talaa ji. Nguuda day play back wala day live. Nguuda da ngay play back wala kañ nga commencé bag yow te yëguñu ko. live. damay woon adduna bi ñu xam loolu ko da ngay playback wala da ngay live. damay playback son yaa ngi ci big taf. Karajo may ñu soowu ngudo bee. waaw. waaw.